Ngoña bu Palmarin ak Duumaane bu Mbunde waaw waaw Duumaane bu Mbunde du abdula moo ñaada cee dal dañ ka demi final mu bëre demi final ñëw war a bëre final abdou si raw kàddu yi premier tour bëre ba ñew ci final Abdou jël lako ko 350 mille mu dala jëm wala Palmarin waaw waaw bu ñëwee Palmarin xel day dem ci mbat dem ci ki nga xam moy Fanta Fat Batsi waaw waaw Lamine Ndour sama xarit bi ndouro walim bergan grand Daouda Ndour he he waaw waaw ni per Amouras gardi mi wote ndeysaan le 6 février ndeysaan sa terrain gaal gi mise 3 millions waaye tamit Mbewaan production woote sa fa nga xam ne moo di Iba Mar mise de 3 millions moom tamit day neex day sëf waaye le 30 ak le 31 sa Diofior ak Sine Saloum production waaye le 29 ak le 30 sa Ndangaan Sàmm ak la Gondok waaye maa ngi gis 4 5 de ak 6 fév mars wala wala wala kii mars la daa loolu loolu Fall famille yi noonu nee man Fall waaye du su dëkkam damay nuyu ki nga xam ne ndeysaan moo di Ousmane Mané ak soxnaam ak yaayam waaw waaw ak Gadia Mané le grand champion Mbunde Alkassab waaw waaw Mbunde Elias Mbunde waaw waaw du jël ko ab Diame gaayin ya, bi daga nax bam dal si kaw gaayin mu ne ne nangul oh, waaye lo nangul ba ñi bëre final ba mën nga nangul oh, waaw waaw du mané ak ha moy oh quel site la bu a am fofu rek waaw waaw du mané ak ha moy mo ñaabu palmarès

desoon ci raw ko bi dal di ñew and ak ay nitam ñew ñu daan ko premier tour waaw waaw mu ñew daari finalu tanki yi Mor Ngom la ndeysaan ak ay signaal ay yaayaas ndeysaan ak ndey kaani borom waañ bi waaw grand Tidiane grand Lamine Diatta grand Elage grand Sekou Sekou waaye grand Ousmane Khady Thialan ko fàtte Mamou Thiaré momo sob ba sa raay Pikine waaye Yacine Sarr dañoo daw dañoo mu daw waaw waaw total a ngi noonu ndeysaan di romb naan ko di courage noonu la lamba ngi noonu finalo yàlla waaw palmarin wala hehe fu mu jëm Palmarin Wow wow, mi Wow wow, waaw Doudou Mané ak nga xamné ne modi mo di bu Palmarin ba ñu ci final bi ndeysaan final wo yalla fi ci Thialane de ko Grand Ousmane xari Thialane borom kanilay jël drapeau Yaya Jammeh Yaya Jammeh ne ko drapeau bi samay mbër jël kaay ma jox loo bëgg kooku mooy Grand Ouz waaw waaw coppati yel moo bañ na duwo ngi bëre ak moo ñaa lu rëy ñaari xale yaa ko ne mu ndegee ko rek palmarès gi aha waaw waaw fi ne nii défendre lay def xanaa waaw waaw na ko oh moo daan na ko laa ilaaha illallah moo ñaa ñaari combat ñaari victoire la ilaha illallah moo moo ñaa eh, eh, yóbbu na 350 mille par